di maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay te boo xoolee sama bët yi bi presque jëlewuma ndax wuyu téléphone bu bari bi am na vidéo bu ñu def boo xam ne indi na polémique bu baree baree bari mais après ci lañ xam ne dañ dafa am lu ñu moom ci suñu bopp am loo xam ne moomuñu ko ñu bari wax dëgg yàlla woo nañu ci patriote yi euh, ku ci mel ne ay grand seex ànd ak ñëpp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ba moo waral sax. ñu ñu supprimer vidéo yi parce que xam nga ñun moom xëy na loolu suñu defoon moom mooy li war a wax moom ñun daanaka duñ ci am hésité di ñëw rek wax ko mais après lañu xam ne euh, dañu am luñ moom am luñ moomul euh, te am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla léeg ci suñuy kàddu dañ ciy profité loolu ñu ngi ciy tudd bu baax a baax hmm. di wax ne comme ni ko gars yi waxee ñu ci bëree bëri ñu lay wo dañ lay wax ne li nga xam sax xëy na ñun xam nañ du ko ëpp waaye c'est pas moment pour ñuy wax kon loolu li muy wane moom mooy moment dina ñëw quoi euh, di sant yàlla euh, di wax ne ñun dafa am xam ne man président Ousmane Sonko moo tax ma bàyyi ci xeel mooy am na ñoo xamante si nii ñi ngi ci biir Pastef te ñoo yées ñi nekk ci APR te bu njëkkoon damaa jàpp ne ku nekk Pastef rek yaa gën ku nekk APR mais bi président Ousmane Sonko waxee loolu ci laa taxaw di seetlu bay gis ay nit yoo xamante si ni ci biir léeg-léeg ki nekk APR da leen di gën hmm, information di gën a dem ñuy dem may gis ay nit yoo xamante si ni dama doon jàpp ne ñoom ñooy ki gën a bañ projet bi histoire di ma jox may gëstu bay gis ne ñooñi même ci suñu combat am nañ luñ ci jàppee te yëguma ko sama moroom yëgu ko mais nag ñi ngi tuubal patriote yëpp di wax ne ñun leen rek lañ gëm jub jubal jubbanti président Ousmane Sonko mooy sunu leader moom lañ gëm parce que dañ gëm ne ñun su réussir ñu réussir waaye su échec ñu échec parce que dañu jaay projet bi dañu wax dañoo wax danoo jaay projet bi kon maa ngi bégg ñëpp suma gaay yi parce que biig li ma wan moom mooy dama am ay nit vraiment presque ba quatre heures cinq heures sama téléphone di sonné muy wuy téléphone mais patriote yi maa ngi jaar ñëpp.